lari jiin bismillaay ma dee ci maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku mi soow booba danga siiw ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba maa dalee jiin booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari non làmb ji mooy sport national nacional réew nit da ngay fonk sa réew boo fonkee sa réew di nga bëgg sa réew. nga drapeau chef de l'État réew mi ko moom chef chef de l'État moo ko moom kenn moom eu réew ko moom parce que mooy suñu institution tey bu ñu nee drapeau chef de l'État rek ñëpp si war a jàpp parce que bésu chef de l'État waaye nag rawatina ñi ànd ak président di ko jàppale politique ba o nekk yor ay ndombal tànk ñooñu ñoo si war a jiitu. c'est la première fois man ma gis drapeau chef de l'État amul sponsor amul dara te ma gis ay nit am lu leen président dénk ñu naan président lañ andal président lañ andal goudi président gisuñu sen taxaway ma xamni ne dañuy wax rek ànd ñoo président parce que li day ni bëri président de la république CNG bind la sponsor nga yor ay tank euh ñun suñu équipe Dakar nga dëkk Dakar di yeewoo Dakar. yàlla def dakaar war a dem compétition dakaar di la bind pour nga jàppale leen gisuñu leen tontu woo defoo dara kooku nga ne yow président ngay jàppale sa bopp nga fi nekkal ku mel ni Cheikh Ba dëkk dakaar équipe dakaar ne fi CNG bind la faale woo leen waa Dakar équipe na équipe bi bind la faale woo leen nga ne yow yaa ngi Médina yaa ngi Dakar yaa ngi dimbali ni ñi yaa ngi dimbali ndaw ñi koy dimbali. kan ngay dimbali nga Lat Diop yor LONASE et puis ñuy gërëm trop gouverneur de Dakar li mu war yëpp def na ko lu leen gouverneur de Dakar bind leen si drapeau chef de l'État yow mënoo tontu gouverneur te gouverneur moo fi représenté chef d'État yow respecté nga sa réew respecté wuñu seen réew respecté wuñu ko kenn ñooñu président de leen foo rek jëlee Cheikh Ba Doudouka yaa ngi dégg euh, directeur port moom recevoir na sax CNG nee naa si jàpp def si dara mu ngi ciy béy turam sax mënu ma ko wax. Ah, oto mbaar lañ doon dawal parce que parce que parce que Diourbel Diourbel gis nañ Dame Diop xam nga Kaolack woote nañ fu ne ndimbal ñaata homme politique moo fa nekk ñaata homme politique moo nekk Kaolack kenn dimbaliwul équipe Kaolack ñaata homme politique moo nekk Kaolack kaw Kaolack bari na ay région tey boo gisee Kolda ma maam Mbaye Diaw ak nu munti mel taxaw na waa Kolda. surtout tey président defaral nañu arène nationale defal nañu lu bari ñun tamit ñoo war a jàppale président ak ñi fi ne képp koo xam ne président dénk na la dara nga dem dem si askan bi bokk ak ñoom sa salaire nga bokk ak ñoom wala nga bokk ak say avantage mais ñun ñu ngi félicité Matar Ba.

ak seen capitaine ki nga xam ne mooy euh, Serigne Ndiaye 2 gis nañ taxawaay bi ñu am xooluñu ne war nañ leen taxaw taxawuñu leen dem nañ jëli ndam li si jom ak fulla ak fayda vraiment ñu leen di félicité bu baax félicité tamit président CNG de lutte ak membre CNG yëpp gis nañ taxawaay bi amuñu ay mooy mais am nañu li nga xam ne war nañ ko am parce que Matar Ba jàppale leen fii doo leen yem jox leen. Salar Diène. bismilaay ma dee ci door maam góor njaay sëtub maram jéen bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb